ausu billahi min shari seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli la hawla wala quwata illa billahi al ali al azim mbokki julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar waaye di leen baalu àq di leen nuyu fii nga xamante ni moo di Badru TV mi seen télé bi nga xamante ni lépp dañ ko jël jagleel ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni mooy borom tur bi Badru mu melni tay ñew neen si bisam waye te ñew neen si wéram waye ñew neen si atam nga xamante lepp li am rek ci aduna yalla ko amele si barke ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak euh, ñi ngi fi ci Badru TV tay nak ñi fasiyene ñewat siling ak yeen ci li nga ni moo nabi bi ñu wajal nga xamante aduna ci si yëpp a ngi riir ñëpp ngi guddi seydina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye nak ñiko yalla ko ñiko yalla natto ñu xamul ko wax deug yalla sonu ñu si waaye bu ñu xamoon kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lan la leen bis war a jaral yaakaar naa ne dinañ dagg seen yitte yëpp ngir bokk si ñi nga xamante ni ñu ngi waaj pour féete yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag tey nag ñu ànd ak suñu xarit suñu soppe suñu sëriñ nga xamante ni mooy sëriñ Mouhamadou Latif Touré eh, di boromi xam-xam di ustaas di nga xamante ni tabaarakallaa dañ koy bàyyi muy ñëw fii nga xamante ni moo di Badru TV ngi fas yéene ànd ak mom ci lenn ci waajal guddi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam sëñ Abdou Latif ñi ngi lay dalal te it ñi ngi lay tatagal fi nga xamanteni modi Badru TV ñu baye la nga ndiwante ak mbolo bi bismillah bismillah arrahman arrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله الذي أفاض من الجد الذي جهورا غاض والصلاة والسلام على المبعوث على المبعوث رحمة للعالمين محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه ومن تما mbokk yi kon di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam di ndokkeel mbokk yëpp ci weeru mag yi nga xam ne ñu ngi ci mm-hmm. nga xam ne boo doon doon lim ay ngëneelu weer bi mm-hmm. looy njëkk lim mooy mooy weer wi nga xam ne si la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu muy weer woo xam ne weer bu màgg la mm-hmm. muy weer woo xam ne jaadu nañu delluwaat gën a fàttali nit ñi kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a fàttali nit ñi maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. donte at mi yëpp heure bu nekk ñu ngi ci mhm. di jàng ay darsu siira mhm. téere bu jax ñu jël beneen waaye nag rawatina weer wi jaadu na yonent bi ñu jagleel ko ci at mi même buy benn bis boo xam ne lépp bis boobu lépp moom moo koy moom ci siiraam lañ ci wax di fàttali nit ñi dund yonent bi di fàttali nit ñi kan mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax siira yonent bi euh, dafay waral sa xel mi di dal maanaam dafay yokk iman borom xam xam xam siira yonent bi mhm. min asbaabi salaamatil aqida dafa bokk sabab yi tax nit ki am gën a wér pas-pas am gën a dëgër mhm. waye dina bok ci luy jox nit ki ak dal ci xolam manam du am ay jaaxle-jaaxle yu bari bari yi yonent bi ndax borom bi mu ngi netali sax ne yonent bi nahnu naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak man lay dina la netali ci xista yonent yu passé sen dund sen jar jar lo xamne dana tax sa xel mi gëna dal maa nuthabbit bihi fuadak lo xamne ne dinañ si darale sa xol kon siira yonent dina tax nit ki xelam dal xelam dal waye dana tax sa pass pass gëna wér kon motax ci biir jotaay bi dinañ ci gën a dugg. dinañ ci gën a dugg a yaatal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëñ euh, sëñ Abdou macha allah ñëw bi am na solo si li nga xamante ni moo di siira yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dañuy lay laaj rek sëñ Abdou comme ñu dugg si biir waxtaan wi xam na xaj na nit ñi am na lu ñuy yittewoo si li nga xamante ni moo di ahkaamul na nabi yan atte la li nga xamante ni moo di juddub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si feetin wala si. ak lu mu aajoo si ahkaam rek bëgg na nga indil ñu ko incha allah ñu waxtaan si ak mbooloo mi sadri wa yassir li amri صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كنا خمنا ني يونس صلى الله wa sallam mooy ki gën ci li yalla bind te it gënem àdduna mooy xiwal bu gëna màgg boo xam ne yàlla defal na ko doomu adama yi léegi nag yonent bi bis bi mu gëne àdduna kontaan giñ ciy kontaan ak bëgg giñ ciy bëgg ci luga loolu moom la ñuy tuddee al ixtifaal wala comme ci nuñ ci gën a ñëwee xam nga dañuy wax am na ñu tuddee ayit ak ixtifaal ayit buñ ko waxee ci luga comme ni ko ibnu faris waxee ci mufrad maqaayis luga xalil ibnu ahmad al farahidi wax na ko nee na ayit buñ ko waxee lu muy firi mooy takar mu ngi jógee ci awda mooy luy dellu si maanaam takarara mbir muy ñëw di dellu mhm. léegi nag ay euh, bisu gàmmu yonent bi wala bisu yi nga xam ne ñu ngi ci am mbégte mhm. dañ koy tuddee it mhm. ngir gàngulu ci ngir ñaan ci yàlla ngir mu delluwaat si ñun ay at yu bare bari te fekk ñu ci jàmm loolu saa wax na ko ci حاشي أم بو تشرح أقرب المسالك لكن عيد بو باتو عيد بو فك تشري على شريعة نار عيد مو أم أصله نبخم نجكم عيد الفطر عيد الأضحى وعيد نك بو يجمعنا لغبي عيد بالمعنى اللغوي آه، كم نكو آه، جوهري وغه ابن منظور تمين وهنكو نين عيد تمانا لغه موي بمعنى السرور والفرح مانام عرب سايو كامين يان تي مبكتي rek arab daf lay tudde ne yow yaa ngi ci iid da nga ko bax manam kon tay bis bu yonent bi judd bu ma si kontaan di ci bëgg arab man na ne man de man ci bisu man ci bisu iid waye du mana sharia ndax sharia mom ñaari iid la tëral ci aslu arab da fay wax ne ma ji ukum iid comme sen ñoo ngeen ñoo fi iid la ci man tay wala mathalan liqaa ukum iid daje gi ma daje ngeen tay lolu iid la comme nous kenn ci arab yi waxe ci woyam ne inna aidi yawma ati hayyahum wa umarrigu fi tharahum muqlati nee na man sama ayit mooy bis bu may mën a ñëw ci seen réew mi di mën a xool seen suuf si ak ni mu taaroo am na keneen ko wax aydun fa aydun fa aydun sirna mujtamia wajhul habibi wa aydul fitri wal jumaa nee na tey ñetti ayit daje nañ xëy na bisu korite dafa dajewoon ak jumaa mu ne ñetti ayit yooyu mooy bisu korite gi ak sama karkanamu soppe bii ak bisu juma bi yoy yëpp ayid la maanaam ci as ci lugha arabiya bépp bépp bis bo xamne contane nga ci am nga ci mbekté rek ayid la legi est ce que am na jullit bu ñemee wax ne mom contane ci judd yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam kon bo ci contane lo ci def mer te iblis moy ki ñaka mer ci judd yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ndax bi yonent bi juddoo nee nañ an anina dafa yox yox bu tàng di woné ak nakar gi nga xamne amna legi nak bépp julit bo xamne contane nga ci judd yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ganem si mu àdduna xamal ne kon yow li ngay def noonu si luxa mën nañ ko tuddee it mhm. léegi nag sa kontante gi yaa xam noo koy wane mhm. bu dee sa kontante gi mhm. da nga ko mën a wane say jëf yu baax fanaanoo guddi gi jaamu yàlla yaa xam bu dee da koy wane ci joxe say alal saraxe joxe ay bernde ay yaa xam bu dee da nga koy ci nga woor bis ba it yaa xam yëpp jëf yu baax la comme ni ñu ci ñëwee ci biir kon ci gàttal it ci luxa mooy bëgg gi nga bëgg ci mbir mi te juddu yonent bi sallallahu alayhi wa amul benn doomu aadama bu ci bégul bég gi ci bég noonu nag loolu moom la ñuy tuddee al aïd ba léegi baatub dañ ko siy jëfandikoo mooy al ixtifaal bil mawlid nabawi ixtifaal ci luga bi maanaam al ihtimaam wal ictinaam mooy nga ittewoo mbir mi waaye fullaan mbir mi bépp mbir moo xam ne itteewoo nga ko rek fullaal ko rek loolu nee nañ moom la ñuy dee ixtifaal moom la ñuy wax nag gàmm gi ñuy wax nii mm-hmm. te judd yonent bi mm-hmm. jullit bu nekk da ko war a itteewoo fullaal ko mm-hmm. ndax la moo xam ne mbir mu rëy rëy la ci histoire nag euh, itteewoo gi nga itteewoo judd yonent bi noonu loolu moom la ñuy dee ixtifaal kon ku nekk si ñun it war nga itteewoo judd yonent bi itteewoo gi nga ko itteewoo rek loolu mooy ixtifaal te dañoo am benn xaalis bu ñuy wax mooy كل زمان أو مكان يحتوي مولد نبي من أنبياء الله يجب الاهتمام والاعتناء به bépp bërëb wala jamono boo xam ne ab yonent dafa judd bërëb boobu dafa war jullit ñëpp ittewoo bërëb boobu fullaal bërëb boobu comme exemple yonent bi sànq mu ngi juddoo Makka judd gi mu fa judd tax na Makka am na garaat boo xam ne fi ñu toog nii amu ko dëgg la Isa alayhi salaam mu ngi juddoo baytul maqdis Palestine si fi ñuy wax baytul lahm foofu tey am na garaat boo xam ne fi ñu toog nii amu ko lan moo ko jox garaat boobu mooy juddoo gi fa ab yonantu juddu léegi loolu mën nañ ci indi qaida quran yi maanaam alquran jagleel na bis yi nga xam ne mooy bis yu bisu juddu yonantu yi jox na ko ab tamyiz mooy ngëneel boo xam ne jox ko yeneen bis comme tey Isa alayhi salaam wax na ne wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubaatu xayyan nee na jàmm yal na nekk ci man jàmm bu ñu ko waxee. Mhm. mooy mbégte. Mhm. ak euh, mbégte goo xam ne gu ànd ak jàmm la. jàmm loolu mooy mbégte. Mhm. nee na mbégte googu nekk na ci man ci bis bi mu juddoo boo xoolee mu ngi jagleel bis bu mu juddoo. waxul yeneen bis. kon bis bu mu juddoo am na. ngëneel lu mu ci kaw yeneen bis. bis boobu lan moo ko jox nga leen mooy juddu gi fa Isa alayhi salaam. juddu kon loolu qaida quraan la benn nga. bu ñu ñëwee tamit ci ahadis yi. Euh, Ibnu Hajar al-Haytami. Euh, indi na ab hadis euh, ñu ñu indi ci loolu hadis bëri na waaye ñenn rek la ñuy wax ibnu hajar indi na si fàttali baar ci mhm. mu jëllat juróom-ñaareel bi mhm. mooy passe bu tolloog cent quatre-vingt-dix-neuf mooy mhm. téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ak xaysam yi moom it indi na ko ci maj majmu zawaid mooy téeram boobu mu jallat yu bëri la waaye ci mu jallat ñetteel bi ah. boo ko boo boobu duggee kii boobu yéen a nga gis ko hadis boobu ci passe bu tolloog soixante mooy juróom-ñaar fu ak ñett lan la wax ci hadis euh, sadat ibnu aws نانا جبريل عليه السلام بيغا خاوي نك جاداي نيونتو جبريل يونتو نيو بيت المقدس دافكو ديغال نكو جوليل سي بلاص بي نيوخ بيت الله حديث لا تيري مي واخني ميون فو بومو فوف دونك بيس يونتو بي جولي فا بيم باري جبريل لاك هل تدري اين صليت نا خمغا بان بروف نغا جولي لا xawma ko de mu ne ko fii mooy baytul lahm xaytu ulida isa alayhi salaam bërëb bi nga julli ni mooy baytul lahm place bi nga xam ne fi la isa alayhi salaam juddu mhm. léegi lan moo tax ñu dem dafa julli ñaari rak te du ñaari rak farata du ñaari rak yoo xam ne yu mu la du dara waaye daf ko def ngir bërëb boobu tedd nga nga xam ne am na ko bërëb bi lan moo ko may tedd nga mm-hmm. mooy juddu gi fa isa alayhi salaam juddoo kon li hadis bu wér ne place bu yonent juddoo mm-hmm. place boobu dañ ko war a itteewoo mm-hmm. itteewoo gi ko yonent bi itteewoo ak valeur bi mu ko jox moo tax mu dem julli fa ñaari rakk wa illaa konoon mu jullee ko faneen beneen place bu ko sow kon juddu gu ab yonentu juddoo ci bërëb ah. wala place bi mu juddu mhm. place boobu dañ ko war a itteewoo dañ ko war a fullaal mhm. ba léegi bokku na ci liy firnde lool mhm. xadis bi bi wax ci ngeneelu juma bi su ajjuma ngoonu ko ajjuma ñëw na ci Muwatta bi muy lim ngeneel li nga xam ne ajjuma am na ko mu am ko ci kaw yeneen bis dafa lim ba boole ci ne wa fiihi xuliqa aadama maanaam ngoonu ko ajjuma ci lañ bind aadama alayhi salaam kon si lañ bind aadama alayhi salaam loolu dafa bokk ci lu may bis ngoon googu ngëneel ci yeneen ngoon yi des kon juddu gi fa aadama alayhi salaam juddu mhm. loolu moo ko jox ngëneel mhm. euh, bind gi ñu fa bind aadama laa bëgg a wax aadama juddu kon naka noonu it yonent yi bis yuñ juddu mhm. ak jamono yuñ juddu loolu it dafay jox jamono boobu nga ngëneel ak bis boobu ngëneel loolu leer kon bu ñëwee it ba léegi ci hadis ñëw na ci sahih muslim sahih muslim hadis boo xam ne bu wér la ah. foofu bépp hadis bu fa ñëw wér na sax mhm. dañ laaj yonent bi sallallahu alayhi lan moo tax ñu woor bisu altine mhm. mu ne li annahu yawmun wulidtu fii ndax mooy bis bi nga xam ne ci laa judd mhm. waxul ne woor gi dama ko naziroon wala woor gi farata la wala woor gi lii la judd gi mu si judd loolu moo jox bisu altine ngëneel ba tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jagleel ko jaamu yàlla googu léegi nag jëmmi jaamu yàlla googu mu def ko daf ko di sant borom bi ci loolu léegi ginnaaw loolu bépp façon jaamu yàlla boo xam ne mën nga ko si bis bi mën nga ko def ngir sant yàlla ndax sant yàlla du ne dafa tënku ci woor rek boo mënee woor woor mhm. bu am na ñoo xam ne amuñ kàttan woor mhm. ñu def leneen buntu buntu buntu jaamu yàlla yi nga xam buntu jaamu yàlla yi dañoo bëri kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu ittéo gi nga xam ne ittéo na ko bis bu mu judd kon loolu day jox ngënal mhm. euh, bis bi yonent bi judd weer bu mu judd ak ñun xeet bi mu ñëw ñun ñooy gën ci xeet yi téere bi mu indi mooy gën ci téere kon loolu lenn la ba léegi bu ñëwaatee euh, euh, loolu yow yonent bi mu ñëwee Madina mhm. dafa fekk yi di woor mhm. benn bis yow ma asura mu laaj leen lu tax ngeen di woor bis bi mhm. ñu ne ko bis bii de dañ koy woor ndax li annahu yowmu najja allahu fii Musa ndax mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla musalee Musa alayhi salaam ah yonent bi ne nahnu awla minkum bi Musa léegi mu daal di ko woor ne yéen euh, saaba yi na ko woor léegi fii añ la bi tax ñu woor bis bi di ko màgga lan la mooy muccal gi si yàlla muccal Euh, Moussa alayhi salaam léegi muccal gi yàlla muccal Moussa alayhi salaam loolu ci xewul yàlla yi mhm. léegi juddu gi yonent bi juddu gën a si àdduna mhm. loolu ci xéwal yàlla kon faw bis boobu mhm. yàlla ñu màggal ko tatagal ko kawel ko loolu tatagal ko kawel ko macha allah sëñ Abdou jërëjëf indi nga fi ay dalail yu ama ama solo si li nga xamante ni moo di judd yi nga xamante ni yenent yi judd ne ko seeni barab tabaarakallah màgg gi ñu màggee bu wuuteeg yeneen barab bi kon nag euh, su ma dégg sa biir wax dafa mel ni kon am na ñoo xamante ni fi ñu toll ñu ngi contre wala ñi ngi weddi li nga xamante ni moo di màggal guddib Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa gis-gis lan la si ñoom seen xam-xam. waaw di weddi li nga xam ne mooy màggal. Mhm. juddi yonent bi sallallahu wa sallam. Mhm. loolu moom euh, erreur gënu ko rëy. Mhm. ndax benn sëriñ ci Murtani ñu koy wax Cheikh Hassan dafay wax ne. ngay laajte dalil firnde ci màggal yonent bi ne loolu bokkul sax ci teggin bu ñu ne màggal leen rek. na nga jug màggal yow. benn sama benn góor mu ngoon fan yi mu ne. boo fekkoon sax nit ñi di tibb suuf di xalam ah. di tibb suuf nii di sànni hmm. wala ñuy xalam nga hmm. laajte lii kuñ ko defal ñu ne yonent bi hmm. yow booy boo def ndax yonent bi ñu ko war a defal ñun suñ xel sax yeggut fa suñ xel sax yeggut fa mënuñ ko sax mënuñ koy sax def kon màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu dafa wér dafa sax ci bépp waxtu ci bépp jamono ci bépp maqam booy dajji kay wala ngay weddi weddil bu dee dafa am anam guñ koy màggalee goo xam ne bokkul ak li na nam comme tey place yoo xam ne ay mooy yàlla dafay am mhm. ay jaxasoo góor ak jigéen ak yeneen ak yeneen mhm. loolu de nit mënees na ko mën na koo inkaar loolu ñun ñoo ko ñàkk inkaar ndax borom bi subhanahu na ko waaye jëmmi mhm. dajee di fàttali di dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng ñi kan mooy yonent ñu xam kan mooy yonent loolu moom loolu si lislaam la loolu mooy jëmmi lislaam sax loolu mooy jëmmi lislaam ndax bëgg gi ñu war a bëgg ci judd yonent bi loolu amru quraan yi la judd yonent bi ak judd yonent yëpp ndax borom bi subhaana taala moo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu nee na na ngeen bég ci fadlillahi moy ngeenel gi fi yàlla indi ak yërmande gi nga xamne waccel na param adwal bayan bayaan wax na ne fadlillahi moom mooy alhabib alayhi salatu wasalaam mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy mooy fadlillahi kon manam moy qul bi rasulillahi falyef legi bo bi rahmatihi ibnu abbas ci tafsir ibnu abbas waxna ni moy tarjuman al quran nga xamne yunus yonent bi moko ñaanal ni allahumma faqihu fi din wa wa allimhu tawil dal ibnu abbas wax mu ne wa bi rahmatihi ay rasulullah sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas ibnu abbas sahabi legi kon maanaam li muy nekk atfu bayaan wa tafsir maanaam qul bi fadli ay qul bi rasulillahi wa bi rasulillahi fa bi dalika na ngeen bég kontaan ci bi sallallahu alayhi wa sallam te wax nañ la léegi ne bég gi ngay bég ak kontaan gi ngay am loolu ci luxa dañ koy tuddee iid kon mhm. loolu amru quran yi la benn mhm. kon alquran moo ñu digal ñu bég mhm. ci bis boobu léegi nag sa mbégte mi yaa xam noo koy wanee noo ko mën a wanee rek nga wanee ko bu dee da nga gis ne yow sa mbégte mi ni nga ko mën a wanee mooy euh, def lu baax comme julli. Mhm. wala am na ñoo xam ne woor la leen yàlla mën loo mhm. wooral mhm. wala bu dee teew. fàttali nit ñi. judd juddu yonent bi ak kan ma doon yonent bi ci loolu nga ko mën a wane. nga wane ko ci loolu. ndax bëgg boobu ngay bëgg ci dund yonent bi sëñ bi bëgg boobu ngay bëgg ci judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab yéeféer yàlla fay na ko ci naka ab jullit yéeféer boobu mooy kan abu lahab bi nga xamee ne yonent bi judd na jaamam boobu ñuy wax fuwee ba dafa kontaan ba ba ba goreel jaam bi te kenn ci saaba bay gént na gis ne moom ndeke ci biir safara biir su altine saa yu jotee dañuy oyofal mbugalam lu tax mooy kontaan gi mu kontaanoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bisu altine saa yu jotee dañuy oyofal mbugalam moo tax ku ñëw Muhammad ibn Nasiruddin wax na ne ida kaana hada kafirun jaa damuhu bi tabbat yadahu fi ljahimi muxallada أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا te ne bu fekkee ab yéeféer moo bëggoon ci juddu yonent bi def ci lam ci def tax yàlla fay ko loolu ëllëg bu nekkee ci biir safara ñuy oyofal mu gëlam waa kon lan nga foog ci koo xam ne moom dundam yëpp daf ko bëgg ci yonent bi te fekk mu waxit la fa il faut tiyaab rek la ci war a am kon nga gis ci wàllu waxi borom xam-xam yi ابن تيمية رحمة الله عليه في كريم بنيو إقداء الصراط المستقيم في صفحة 260 بوكو بيلي نجيسكو وخنا فاني نيت من نادي ديف ماغال يونتي مانا من مولد ديف كوموي فيتام يالا جوخ كو سي يول بو ري ندخ جبلو واي مودون لان ماغال جي مي ماغال يونتي ماغال يونتي خنا يالا دوس دوما كين ديدت léegi nag inkaar weddi mawlid yëpp wala weddi màggal judd yonent bi li ngay weddi mhm. foog naa du jëmmi màggal yonent bi ndax màggal yonent bi kenn ñemewu ko weddi bu ko weddi bi yéefér ndax yàllaa ko waaye mhm. foog naa it li ngay weddi mhm. du comme ñun nuñ koy defee nii toog di wax nit ñi ci dund yonent bi di jàngal nit ñi siira yonent bi loolu moom foog naa kenn ñemewu ko weddi li ngay weddi daanaka daal boo xoolee ba ci biir kenn xamu ko li nga ko mën li li nga ko mën a attee li nga jàpp ne moo tax nga koy weddi mooy ah. xanaa nga ne lii yonent bi defu ko ci sa gis-gis ak saaba yi defuñ ko mm-hmm. bu ñu jàppee loolu mm-hmm. donte wax nañ la fii nag ne la yonent bi dana daan itteewu bis bi mu judd dana ko daan fonk dana ko daan màggal ba di ko woor mm-hmm. waaye bu ñu jàppee ne loolu wër fan la borom xam-xam wax ni lu yonent bi defut sa bay defuñ ko rek lolou dafa haram ci dina lolou ben borom xam-xam wax yonent bi bu fekke defut mbir mi dafa am lu am ulamaul usul dañ ci bu fekke defuko ko dañuy gëstu dalil ndax tere na ndax yonent bi leen def ne lépp lo xamne ay la tere naa leen ko lépp lo xamne ne jàmm digal na bu fekke nga xamne xol nañ gisuñ ci tere waye xol nañ gis ne defuko amul dalil khas bu rot ne digle na ko suboba maslaha maslaxa mursal lañ koy dañu xol jëmmi jëf ci ndax man nga ko delo manam jëf ji xel nangu nako lu bax bu fekke lu bax la rek su ko defé ñu nangu bu fekke nak jëf ji lu ñaaw la su be lool bi lool moy nek lo xamne du jëf ju bax comme lu borom maraq wax ne euh wal wasfu haythu li'tibari yujhalu فهو ملغى عندهم ومرسل لكن من نقبله لعمل الصحابه ne naqbaluhu والكتاب amali بو فكيه دا ام mushaf بو نيو مانا اب اتي بو خامني amuñ ci sharia dalil bi wane ni yonentu def na ko yonentu defu ko saaba yi def ko xeyna waya amuñ dalil bi wane ne tere nañ ko su boobaa fofu borom xam-xam ni duñ fa am moy maslahatul mursal lañ koy tuddé maalikee nak ñom nangu nañ lool lutax ñu nang ko moy dañ ko gis ci saaba yi lu bari ñu def lo xamne ne jëleewuñ ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam te iqrar nañ ko ndax lutax dafa bok ci aslu din ci gàttal dinañ si am ñu si tudd. ndax ko ne xam na ne nodd ñaareel bi ñu nodd nii. nodd bu njëkk bi. ci juma. Mhm. nodd boobu yonent bàyyi ko fi. Mhm. ginnaaw bu mu fi jógee la ko Ousmane ibn Affan def mhm. ndax gis na maslaxa bi ci nekk. ndax kat am na ñu daan nekk fu sori. léegi nag mu njëkk a nodd nodd boobu pour ñooñu waajaale jox kon boobu benn. léegi lii est-ce que nit ñeme naa taxaw ne lii bidaa la Ousmane Ibn Affan moo ko sos am na sax ñu sànk bay jëm wax loolu ah. dañ ko war a bàyyi ñu ah. loolu xam nga kenn du ko te lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko doo ko fekk ci alquran doo ko fekk ci sunna mm-hmm. foo koy fekk ci amali sahabi ah. beneen na nga Ibn Omar ci tashahud mm. am na lu mu ci yokk mm. te borom xam-xam yëpp kenn jàkkaarloo toog moom ne ko li nga fi indi sànku dañ la koy delloo wala déet mm-hmm. déet dañ ko jël noonu ak iqraar xam ne lii mm-hmm. li ko saab yi def mm-hmm. mooy wane ne dagan na bu fekkoon dagan saab yi du ko def baneen ci wàllu màggal xam nga léegi-léegi nit naan léegi comme dangeen ngeen di màggal yonent bi def leen ni ko yonent bi doon màggalee ni yonent bi daan woor imam malik mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mooy alimul madina comme li borom maraat wax di ko tagg ida sami'ta fal آه، له الشأن هو الذي هو الذي له الشأن الذي لا يدرك آه، واو لعلمه الصحيح مع حسن النظر آه، مع مع بيت إذا سمعت فالإمام المالك هو الذي له الشأن الذي لا يدرك لعلمه الصحيح مع حسن النظر إلى آخره وإمام مالك آه في مدينة نعم. bu fa daan dugg mhm. daaw fa nang nangoo duggee si lu wër kiw yonent bi ak tànk tànk dal daf daan dox ak tànk tey daaw fa nangoo wax lu tax mu def ko mhm. man lin nabi ngir màggal yonent bi mhm. léegi est ce que am na benn borom xam-xam bu ñëw taxaw ci imam malik ne ko lii ak sànku la ndax yow da ñu bëgg woon ne yaa gën a bëgg saaba yonent bi saaba yi daawuñ ko defee nii defee ko ne ko saaba yi doon defee loolu est ce que am na ko ñeme wax est ce que kon yaakaaroo la ni ñoom dañ xeeb daraja yonent bi parce que ah, màggal yi nit ñi di def si si juddub yonent bi wala gëm-gëm bi ñu wane aqida bi ñu wanee si si ni ñu toll si yonent bi est que jaaxalul gaa yi te loolu dañ yaakaar bu fekkente ne jaaxal na gaa yi mooy kon dañ xamul daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, xam nga it bëri na looy dégg ci ñoom mhm. benn wax bu siw mooy yonent bi mindeef la comme ñun ñu koy tegtaloo ci wax joo xam ne yàlla yéeféeri la doon la doon waxat di leen yee maanaam det yàlla wax jooju yàlla daf ci ŋàññ laa bëgg wax mhm. balaa may ñëw ci bi mu ci wax ak jullit mooy fa borom bi di wax ne qaalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum mooy ci suratul ibrahim yonent yi bi ñu leen yónnee seen mbindeef seen mbindeef lu ñu leen fen looyee mooy in in antum illa basharun mithluna قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ñi lan lañ jëfandikoo pour weddi seen yonent bi mooy dañ na ko yow min min def ngeen comme ñun خلا واخ جوج نمدانسي يالا نكوي نتل اي يفير نيوكو واخون نيوكو واخون يونتي نل ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لغي يونتو بي نك بي بيكو يالا دي واخ نكو نانيو واخ نين مينديف لا كوم نين لوتاخ واخ جي نيو موي pour bañ fitna ci mom bañ ba nar ko def yalla no mhm. tax ma qul inma ana basharun mithlukum yuha ilayya mhm. manam min la ci ne ay loxo la am ak ay tank duma malaka duma yalla duma mhm. da manam min la waaye yonent bi sallallahu alayhi li mu am ci ay xasaayis loolu kenn mënu ko xat mayu yàlla yi ci moom la ci moom la yem kon euh, kon kon yonent bi sallallahu martabaam foo ko natt te it ci wàllu màggalam loo mën a def ngir màggal ko mhm. loo xam ne lislaam nangu na ko rek loolu jaadu na tey day jaadu ci bis bu ne mhm. ci waxtu wu ne ci jamono bu ne ndax xel nanguwut tey mhm. nga nar a wax ne ni ñuy waxtaanee si yonent bi dagan na ci at mi yëpp waaye bu ñëwee ba bis bu yonent bi juddu nga nar a taxaw di inkaar nga ne dagan ci bis boobu <laughs> loolu est-ce que xel nangu na ko déedéet xel nanguwul que euh, comme ñoom boo bàyyi xel seen dalaa'il yëpp dañuy joxe si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee Euh, bala ñuy weddi yonent bi rek gàmm dafa jot saa yu mawlidu nabi jotee rek foog ñoom ñu commencé wax dem neen ba sa ñoo xamante ni dañ naan yàpp ndawal yi ñuy togg si gàmm gee ay ndawali mbaam koo xam ne ko yàlla di soppeek hmm. boole ko si lekk da ngay yenn xeetu wax yu ñaaw a am na sa koo xamante benn sa toog neen wax ne mu ne moom saa yu romb tànt goo ne dañ ko tàntal yonent bi bii romb day fatt noppam hmm. ngir bañ a dégg rajo yi wala wala ñu fay waxtaan xoolal xoolal wax yi ni ñaaw yooyu noonu hmm. ndaxte lépp nit daf koy def ngir jàngale waaye daf ko tamit ngir yonent bi sallallahu alayhi wa mais ñoom daal dama gis ne ñoom mën nañoo am fenn fu ñu reconnaître yonent bi. waaw mooy li ñu wax rek bokk na si. Mhm. xëy na ñàkk ay kilifa yoo xam ne jëlee nga ci ñoom. Mhm. aslu bëgg yonent bi sallallahu alayhi ak xam valeur yonent bi. ndax kat bari na ñuy wax ñoo xam ne dëgg-dëgg dund yonent bi jànguñ ko wala jëlewuñ ko ci ab sëriñ boo xam ne fiqa la mhm. mu mën leen koy tegal comme ni mu leeree loolu daf ci bari. ndax kon ma la déggee kon dafa mel ni kon nit ak foo mën a nekk foo nga am wasila bu la jokkale si diggante yonent bi wala nandal la si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga li ñu tuddee al axd min al kitab wa sunna mubasharatan mooy nga ne alquran ak sunna rek ci ngay ci ngay sukkandiku ci ngay jëlee loolu mënta nekk te mën nañu wax ni sax borom xam-xam yi ñu ci ëpp wala borom xam-xam yëpp sax dëppoo nañ ne aami mooy koo xam ne yàggut ci martaba mu tey dafa xaraam ci moom muy dëgg ci sukkandiku ci alquran kese ak sunna ndax boo xoolee ci maraax yi mi ngi wax ne man lam yakun mujtahidan fal amalu minhu bi maana nafsi mimma yuxzaru mm-hmm. koo xam ne yàggagut ci matoo mujtahid mooy comme comme fi ñoom imam malik tolloon ñoom shafii tolloon fa ak ahmad ibn hanbal ak euh, abu hanifa mm-hmm. ku yeggut ci martabu mujtahid boobu mm-hmm. daganul ngay jëlal sa bopp ci atte alquran ak atte sunna gis quran rek jëfee wala gis sunna rek jëfee moo tax Sufyaan ibn Uyayna wala kenn ci salaf daf doon wax ne as sunnatu madallatun li ghayril faqih nee na koo xam ne nekk goo faqih am goo benn niveau bi topp sunna nee na da ngay sàmm ndax xadis yi dafay ñëw di taaru bii ñëw wax lu mel nii bii ñëw wax lu xaw a niroog lii léegi nag xam-xamu fiq bu wér bu ñor nga mën a am pour mën a boole wax yi xam lan la yonent bi di wax ndax wax yonent du lu ñuy foyee ba ku jóg rek ñëw engagé léegi nag xam-xamu bii di xam-xamu diina ci luñ mos a xam ba léegi dafa nekk silsila mooy da koy jëlee ci nit kooku jëlee na ko ci beneen cheikh mm-hmm. kooku jëlee ko ci beneen cheikh kooku jëlee ko ci beneen cheikh ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy jox xam-xam bi leer mm-hmm. waaye bu fekkee xam-xam bi ci téere nga ko jëlee xool téere yi maa fi dàq lii maa fi dàq gëstu mm-hmm. loolu sànku la gën a mën a def la gën a mën a jox borom moo tax comme li waa ji comme li waa wax ne آه، من طلب العلوم بدون شيخ نعم. يضل عن الصراط المستقيم نانا نعم. كيف غوم ني ياغي بوجا ساك خوم خوم تا امو اب شيخ بولاي تيكس يوني نانا ياو داغي واتي صراط المستقيم وتلتبس الامور عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم نانا نعم. ميري داي لنت سي ياو باغا غنا سانك ساك واج ني وخ توم الحكيم استوارم فوك ناسيونا دا ما فك بايام بايوغو تيري تيري خام خام مو فوك ني مو تي نانا تيري فاج مو جيل تيري دي خول با غيستي حبه السوداء شفاء لكل داء مو فك dafa amoon benn feebar. Ah. mu gis ñu ngi bind ci téere bi ne ah xabat sawda de day saafara mboolem tawati. Mhm. waaye fekk ndeke am na melentaan wala daal aw weñ bu ñëw. Ah. Eh, toqal foofu benn lu ñuul. Mhm. ci baag yi. Ah. ba mu ko liiree gis fa mu nekk mel ni xayyatu sawda. kon liñ fa bind xayyatu sawda. mooy jaan ju ñuul. dafay saafara bépp. <laughs> jàngoro mhm. mu dem nag uti jaan ju ñuul dëbb ba mokk jël sunguf si. di ko di ko jëfandikoo. ci saa si moo ko faat mooy sukkandiku gum sukkandiku ci téere moo tax téere mhm. dañ koy dimbane ko waaye nekkul lu nit di amee xam-xam ñu bëri it na ci lu leen tax a taral ak sànq bu métti gi mhm. danañ càlla musal mooy déglu gu bëri gi topp ñi di déglu rek ñi nga ngay déglu li muy wax ah. tegewut sax xam-xam daanaka ngir fayu ak ngir parparloo ak ngir parparloo donc wala sax waaye gis nga comme li ngay wax rek euh, parce que tey booy xoolee ñu bëri den basé wu si wàllu déglu fan dafa am ku ma doon waxtaanal mu ne moom euh, buy julli buy julli si boppam faatixa rek lay jàng si premier rakka bi deuxième rakka bi troisième rakka bi quatrième bi du si jàng dara parce que day bëgg julli bu gaaw te dégg na benn saas mu ne booy julli foos premier rakka bi rek ngay jàng faatixa mm-hmm. am na ñoo xamante ne am na koo xamante ne mi ki mu wax li waxaat na ma lu ma keneen waxoon kooku ne bu xëyee fajar bu yeewoo bu fekkee ne yeewoo na ay boori 10 heures 9 10 yooyu noonu dootul julliti suba léegi doot léegi dina julli suba dootul julliti suba waaye dootul julliti suba rek tàkku santi bis gee parce que julliwul suba si si waxtoom bi mi yenn xeet yoo xamante ne dama yaakaar ne dafa am ñoo xam ne ñoo koy dugal seen bopp te ku ko wax borom xam-xam la te moo koy jàng kon dafay gis ne comme li ngay wax rek ñoo xamante ne dañ seen seen xam yëpp dañ ko yemale si téere wala alxuraan ak xadis pour ñu am yenn dégg-dégg maanaa adi xadis bi du yomb foog ñu am wommat ku leen wommat koo xamante mooy li teg si yoon. loolu mënul mhm. loolu mënul ñàkk comme il faut nga am cheikh te cheikh boo xam ne bu ñor la it koo xam ne mat na cheikh. Mhm. ci kooku nga mën a jëlee. Mhm. ndax borom bi def ne wattabi sabila man anhaba ilay mm-hmm. na nga topp yoonu ña nga xam ne dañoo toroxlu dellu si man mm-hmm. wa tabi sabila man anaba ilayya faw nga am ñoo xam da leen di jël teg leen sa kanam di leen topp ñu lay gindi di la wan yoon boo ko deful rek da ngay sànq am koo xam ne moo moo la ciy gindi di la wan lii ak lii ak lii mbiru diine yi noonu la mënoo fexe fexe ba demal la woon mooy doy loo nee tax sax ñu daan takfir imaamu ali waaw te fu ko teg kitaabu sunna imaamu ali utee na kitaabu sunna kaafir am ci kuko kenn ci ñom kuko fekk muy xutba mu ne ko yaa imaam mu juk taxaw ne la in ashrakta la yahbata amalu li annaka hakamta bi ghayri llah atelo nga ko xamne ne bokkul ak borom subhanahu wa taala kon yow génn nga ci dina xol lu ko kon bala dafa am lu ñu war xam moy usul yi ñu teg pour jele ci dina du quran wa sunna kesse malike yi dañ ci lim ba fu quran wa sunna ginaaw lu amali sahabi sahabi lo xamne def nako ah lolou da fay tek ni li هجة لنا كم نقول واجب قول الصحابي هجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع بلقي قياس بلقي إجماع شيء جل شيء شيء مصادر التشريع له بلقي لنيت ده استصحاب بلقي لنيت ده مصلحة المرسلة بلقي لنيت ده الاستحسان لنيت ده ila akhir yi la bari na mhm. mën nañ ci lim yu bare bari yoo xam ne yooyu ci masadir tafsir mhm. léegi nag boo ñëwee tënk sa bopp ne kitaabu sunna faqat loolu mooy borom xam-xam yëpp tekki dara da nga leen di faxas mhm. déglootoo seen wax comme ni ko waa ji waxee ne wadda anka ara ar rijal <laughs> na nga bàyyi xalaatu góor ñi waaye jëlal xalaatu yonent bi kese te góor ñi lañ lay wax ci yonent bi lañ ko jël sallallahu alayhi wa sallam macha allah sëñ abdou jërëjëf waay euh, li li tax ñi gën si bëggee rek euh, dañ am contente ndax euh, kii joxe yenn dalail yoo xamante ni si wàllu gàmm la Euh, dafa am solo pour ni ñi xam ko euh, xañ na ñu bëri dañuy toog rek ne yonent bi nangam yonent bi nangam waaye bëri na ñu siy wax ñoo xamante ne tey bu ñu leen laajoon yenn tegtal si li nga xamante ni moo di gàmm pour ñu wax ko problème la kon xaaje sañ ab Abdou ñu ngi am mbégte bu baax a baax di la laaj rek lenn si sifatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni euh, xaj na nga baaxee ko ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan programme bi di Badru TV di spécial gàmm incha allah rabbi si ñi nga xamante ni ngi war a waaj ak ñi fi nekk yóbbu بسم الله آه صلى الله عليه وسلم كنا خمنا ني موي خير الخلق واي موي اكرم الخلق كوم نقول وادي وخي لي بيت بوب وكل وصف حميد هذا افعل تفضيل رجاء الوراء رجاء البراء يوم مزدهم كوم لو قر شمائل وخ كل فضيله له بافعلها كأكرم وأفضل وأعقل نينا نعم. بيب معه وباخ رك خمال لي يونس صلى الله عليه وسلم مانام لا تي گن لا يور مانام نعم. ملوم بي دا فا كاوي parce que fooy natt melo melow baax fu mu yem rek moom bosam romb na foofu ci lewet ga mhm. ci waaw baax ga mhm. ci toroxlu gam daan toroxlu mhm. ci tabe gam tabe woon ci yërmande gi mu amoon ba borom bi wasafee ko melo melo woowu ne ra bil muminina raufun rahim bil muminina raufun léegi nga xool yërmande gi yonent bi amoon ci doomu adama ci boobu rek la ñu xam nga ay jikkoom du jeex te jikko boo ko jëlee du jeex ndax euh, tabe jikko la mën a muñ jikko la tawakkul jikko la mhm. toroxlu jikko jikko yi du jeex waaye tey nga xool yërmande gim dencaloon mbindeef yi ba borom bi tuddi ne ko bil muminina raufun rahim mhm. yonentu bi muy ñëw mhm. ci jamonoom toog na benn bis di waxtaan bi muy ñëw ku ne xam ne doomu adama tekkitoon dara ay jaam lañ doon ni ñuy jaayante ak yooyu toog na di waxtaan ak saabaa mi benn yahud ay yahud romb di suli seen néew di suli seen néew yonentu bi daal di jug te teg not bàyyi wax ji mu doon wax daal di jug tax saaba yi affetu ne ko ah innaha jinaaza yahudiya ñu ne ko li ab medd yahud la rek néew ah. yahud mu ne leen alaysa mhm. alaysat nafsun bashariyatun mhm. tadhabu ila naar aw kama qaal mhm. xanaa kii du ab mbindeef boo xam ne dafa rëcc tey war a dem safara nga gis xolal yonent bi ak yahud ni mu noonu woon yonent bi sa noon xanaa sax bu waaye bu deelee sax danga war a kontaan. Mhm. waaye yonent bi ànd ak loolu lépp ba yahud bi di romb jug na ak ku toll ni yonent bi ak maxaamaam bi jug na taxaw. Mhm. taxaw ba yahud ba néew ba romb. Mhm. mu door a toogaat kanam gaa ngi tiis kanam gaa ngi jàq. te jëf ji jëf ju màgg la. boo koy seetantal. loolu tax am na ñaar ci saaba yu ñu teewoon foofu ginnaaw loolu dañ jël jëf ji ñoom di ko doxalee. Mm-hmm. bi demee demee Faris ubbi def fa fatxu. Mm-hmm. romb nañ fa ay néew yoo xam ne ñu ngi leen di suul néew yéeféer saa yu ñu ko gisee dañuy taxaw tem. ngir ormal gi ñu ormal bakkan doomu aadama boobu. jamono boobu lan moo nekkoon ci kaw suuf. Mm-hmm. gis nga jamono boobu ñu fi ne woon ay ruumaan yeeg yooyu. seen rab yi ñu daan yar. seen eh, ñay yeeg seen bukki yeeg seen rab yi ñu nit lañ daan jënd. mooy jaam yi ñu daan jënd nit ñi ñuul ñaag jaam ah. moom lañ daan jox rab yi pour di ko yafalee rab yi. xoolal jamono jamono boobu doomu adama ni mu ñàkkee solo. waaye xoolal yonent bi valeur bi mu jox doomu adama ba ci sax néew doomu adama bu faatu. nga xool arab yi boobu seen aada. mu hmm. daan ko am doom ju jigéen da koy jël gas ba mu xóot nga dugal suuf suuf. noonu lañ naan tax wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat am na ko ko nettali ci kanam yonent bi di ko nettali nam doon def doomam sax ba si kanam yonent bi ronkañam tuur mu ne xas bu doy na noppi mm-hmm. ndax nga gis yërmande gi mu am ci mbindeef yërmande gi mu am ci doomu adama yi dundam yëpp daf ko joxe mm-hmm. daf ko sacrifier ngir doomu adama yi sallallahu alayhi wa sallam ah kon macha allah jërëjëf sëñ ah amati leen mbégte trop trop trop ah, pour bokk ak yow jotaay bi si li nga xamante ni moo di eh, jikko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yërmande gi mu ne woon si ñi nga xamante ni ko Yàlla jagleeloon ah dañ lay dañu lay jéggul rek xam naa ne time bi xoj nañu ñuy bàyyi la rek incha allah nga tëjee ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ak lan ngay conseil ñi nga xamante ni tamit ñi ngi màggal guddi Yonent bi ak ñi ñuy fekk tamit ñoom it ñuy màggal guddi Yonent bi lan nga leen di conseil alhamdulilah ah, di sant yàlla bu baax ci jotaay nga xam ne mooy jotaay yi gën ci jotaay yi di waxtaane ki gën ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam ah di wax ne rek comme niñ ko xamee yonent bi dañ ko war di màggal di kontaan ci moom fii kulli laxba waxtu wu nekk jamono bu nekk amul bi listisna te it màggal gi sax warta yem kese ci bisu gàmmu gi déedéet borom xam-xam yi dañuy laa biir ne ku mën guddi gu jot balaa nga tëdd nga am trente trente minutes yu jiitu sag nelaw nga topp ko siire yonent bi moo xam ab borom xam-xam ngay déglu mm-hmm. wala ab téere ngay déglu ndax loolu mm-hmm. dafay def ci sa xol bi ak lu rëy loo xam ne ak leer goo xam ne mm-hmm. leer googu day ànd ak yow waaw day daf lay leeral ci sa biir dund gi te yonent sa sallallahu alayhi dundam mooy li ñuy mën a leeral moom la ñu yonent bi moom la ñu borom bi subhanahu wa taala royloo nit nak mëno ko roy ta xamul dund kon ñun suñu ité yëp mo war nek nan la def ba xam dund yonent bi nan la def ba roy ko ndax borom bi subhanahu wa taala ben dund amul valeur ci kanamam loolu dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nim ko waxe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawmal axir wa sallallahu ala sayyidina muhammadin jeri ma sha allah jeri jërëjëf ah kon nak mbokk yi mu ngi nonu li lañ leen indi lan tay ci li nga xamanteni modi moo di de spécial gàmm di mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ñi andalon ci suñu xarit suñu soppe suñu latif Touré macha allah mu génn fi xam-xam bu am am solo ñi nga ñaanal yàlla yalla yàlla barkel xam-xam bi yalla yàlla yok xam-xam te yàlla doli sutura doli fa sahabi si barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nak li lañ len Badru TV amalon ci guddi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba yoon ak ñeneen oustaz ci guddi gi incha allah wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh